asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci TMS TV ñu ngi am kontante ak euh, mbégte di ànd ak yéen toujours ci seen télévision TMS TV ngeen di gis nag euh, ci image yi nii général des Guinée le roi médecine traditionnelle internationale the king of the king moom ngeen gis otoom di doore gaare nii sëñ bi nag wàcc euh, sécurité bi wër ko euh, am na nag lu muy wax mi ngi noonu taxaw ci buntu kër gi ngeen gis sëñ bi euh, mu ànd ak sécurité bi di dox ndànk di war a dugg ci biir kër gi sëñ baa ngi noonu di dox di dugg mu ngi dugg pour saafoonteeg patient yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi ci suuf bu fa jógee nag day jël escalier yi daal di yéeg ci kaw mi ngi noonu di yéeg ci kaw escalier yi mu mel ni na kër gi tey dafa xaw a nekk ci ay travaux ak ay chance xam naa ni jombul mi ngi war a ànd ak caméran bi ñuy wax Cheikh yéeg ci kaw teraas bi daal di xool la nga xam ni moom lañ fay def comme liggéey surtout que ci wàllum nawet bi la ñu ne ku nekk xam na ni immobilier ak bâtiment yi def ci am bërëb yoo xam ne day am ay fissures ngeen gis noonu. Euh, dem nañ ci couloir yi xool ruq-ruqaat xool fenêtre yi nga xam ne dañ ko war a changer xool lépp loo xam ni moom la ñu war a defar ci kër gi nga xam ni fii mooy clinique bi fii mu nekk euh, bu ñu jógee ci loolu nag dañuy wàccaat ak yen daal di jël patient yi nga xam ni ñi ngi fii ci kër gi war a gisanteeg sëñ bi ñu yéegal leen benn par benn ñoom ngeen seen noonu ci image yi ñuy yéeg benn par benn sécurité bi di leen di contrôler euh, di def mesure de barrière yi mooy euh, takk masque laal gel ñu contrôler leen xool ndax yoruñu ngànnaay ñu ngi noonu di dugg nag bu ñu duggee nag euh, ci salon bi ngeen gis ñu toog nag fii lañ leen di installé bu óoru xewlu jotee xewlu yi dina leen fekk fii ci loo xam ne ci poosu sëñ bi lay génne ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ bi. di la dalal ci TMS TV di la laaj tur bi ak sant bi ak fan nga jóge Mohamed Sène laa tudd maa ngi jógee Kébémer côté lu Kébémer laa jóge dëkk bu ñu waaw côté Louga waaw fa laa jóge ñëw ñu bëggoon xam lan mooy tànk yi ci kër gi tey dama fi ñëw woon pour jël see rendez-vous ñëwoon naa fi fan yee ci gannaaw mais après yaram bi mais jëlee garab moom mu ngi oyof ma ne xaar mu ñëw jël si rendez-vous bi waa ci kër gi fi waa ci kër Thierno Moule Sow kon c'est déedéet ñëwoon naa fi ay yoon après bii mooy dama fi ñëwaat pour jël sa rendez-vous garab laa jël si. nan nga gisee organisation kër waaw organisation bi moom macha allah parce que dal na xel boo fi ñëw sax man moom damay am kontaante ak fierté xam naa dafa mel ni sama kër rek lay ñëw bu mu fi ñëw moom. bu ma guddee bu mal liyee ndax danga añ bu dee añ da nga reer macha allah sant yàlla bu baax daal kontaan nañ si lool macha allah di ko ñaanal rek gudd fan ak wér gu ndax mu ngi dimbali askan bi yëpp macha allah. merci ñu ngi lay jaajëfal. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. Euh, di la dalal ci TMS TV di la laaj tur bi ak sant bi ak fan nga jóge euh, maa ngi tudd Abdoulaye Souleymane Bari. Mm-hmm. maa ngi bàyyeekoo Gambia. foofu sori na de. Ah, nga ñëw fii. Euh, mos naa ñëw fii waaye watu bu ma ñëw fii fekk feebar bi mu ngi commencé. Mm-hmm. soo ma waxaat ma téléphone sëriñ bi ma wax ak moom mu ne ma ne liggéey bi fu mu nekk ni nekkul di dem normal mun naa dellu Gàmbi ma nekk foofu ba saay bu affaire bi dalee feebar bi ma ma dellu si waat soo moo tax ma ñëw fan yii. kon bii mooy sa sa deuxième fois ngay ñëw. waaw mooy premier ma naka deuxième fois ma ñëw fi. kon da ñëwoon pour gisanteeg sëñ bi. waaw waaye bu ma ñëwoon premier si téléphone rek la waaye gisante wuñ. Ah, waaye dama koy seetaan si YouTube waxtu bu nekk mu ngi faj nit yi. d' accord kon yow ci youtube nga doon seetaan sëñ bi. waaw foofu laa ko foofu laa ko xamee foofu laa ko doon seetaan. léegi bi nga ñëwee ci kër gi nan nga gisee organisation kër gi. waaw waaw baax na na waaw macha allah baax na trop mhm. waaw am nañ añ joli nañ loolu kay macha allah yow xamuloo sëñ bi ci youtube nga koy seetaan lan nga ñu mën a wax ci sëñ bi ci li nga jot seetaan. ah maa koy gis mu ngi faj foofu faj faj bu baax daal si affaire jinne yi waaw boobu kay baax na moom baax na trop. est-ce que est-ce que est-ce que jotul mu mu dem fekki waa Gambie. na mu dem fekki leen Gambie foofu jotul tey amul ñu bëri ñu ko soxla foofu. a ah, am na ñu ko soxla foofu de bu fekkee mun na ñëw foofu de dina baax de. waaw waaw am na ñu koy laaj foofu bu baax a baax. ah sëñ bi dégg nga kii li muy wax. waaw am na ñu koy soxla am na ñu la soxla foofu bu baax a baax su fekkee mun nga gaaw léegi léegi nga dem foofu Gambia waa Gambia soxla nañ la de waaw. bu fekkee waa Sénégal dañ lay fonto waa Gambie du la fonto de waaw boo demee foofu Adama Barrow ay soldaram lay utal ñu lay garde guddi a bëccëg ah, <laughs> kontaan nañ lool merci ñu ngi lay jërëjëfal di la jaajëfal ci TMS TV ñëw comme que dama ko doon seetaan si YouTube man tam maa ngi ñëw pour seet mu seetal ma suma yaram suma wërsëg ak suma famille yëpp moo tax ma ñëw pour gis ko maa ngi kontaan trop jërëjëf ñoo gën a kontaan tam seen liggéey bi baax na trop kontaan naa waaw merci ok sëñ bi noo def. maa ngi fi rek ça bien maa ngi lay ziar. ñu ngi lay nuyu di la dalal ci TMS TV. waaw oh, delloo maa ngi sant bu baax. ñu bëggoon xam tur bi sant bi ak fan nga jóge moom man Baba Ndiaye laa tudd maa ngi jóge jógee kaf Foire. alors ñu buggoon xam tànk yi lan la. bon tànk yi moo doon mooy dama doon seetaan des fois Thierno Moule sew ci YouTube. di seetaan YouTube Thierno Moule Sow après doon am lu ma doon yegg sama yaram après ma ñëw gis ko mu defal ma consultation. mais musuma daanu quand musuma daanu musuma daanu dans ma vie dama am loo doon yëg rek ma ñëw gis ko mu defal ma consultation après mu ne ma del ñëw rendez-vous ma la jox say garab ah. loolu la demee ah. mais man kon mës nga ñëw fi ah mës naa ñëw fi waa mais ay daanu musuma dikkal ci sama sama àdduna ah. daa lu ma doon yëg rek ma ñëw mu defal ma consultation après di ma jox rendez-vous. Ah. d'accord nga gisee organisation kër gi. waaw organisation bi ñu ngi koy rafetlu waaw bon tey xam nga par mercredi Thierno dafa waxoon ni. mercredi yi ñuy jël si garab ñoo ko moom. Mm. bu ma gisee gars yi xam nga ñeneen par consultation yi ñëw. ma xaw a jaaxal ko après ma wax ak kenn ma wax ak Alfousseyni mu ne ma bon après dinañ leen jël. mais organisation ñu ngi koy lu ñu ngi rafetlu liggéeyu Thierno Moule vidéo am na solo trop waaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñaax mu continuer ci vidéo yi. parce que bëgg nga ñu respecté la ñu waxoon. voilà voilà ñu respecté la ñu waxoon parce que dañ ne mercredi ñu am rendez-vous rek. amul consultation ñu am rendez-vous ñoom lañ jagleel mercredi mooy ñu war a jël ci seen garab. am na solo xam nga ñu ñëw gis fi gars yi consultation ñu jiital leen aussi bon day xaw a. loolu voilà loolu day xaw a day waar daal. alors nga ne sëñ bi ci ay vidéo am nga ko xamee léegi ñu bëggoon nga daaneel foofu lan nga ñu mën a wax ci sëñ bi ginnaaw bi nga seetaanee ay vidéo am et nga jëflante moom. waaw bi daal maa ngi koy kontaan nañ ci moom daal parce que lu muy wane ci vidéo yi gisuñu benn sëriñ bu koy wane dañu waxante dëgg preuve yi muy wane ci vidéo yi gisuñu kenn ku ko mus a wane ci biir Sénégal moom sëñ bi daal borom xam-xam la bon preuve yi muy wane nañ waxante dëgg gisuñu benn sëriñ buy buy faj di wane moom moo ko mës a def man moo tax mu vidéo yi laa ko xamee ma xam ne kii li muy def dëgg la moo tax ma ñëw wax waxtaan ak moom loolu loolu xam naa loo xam ne kii li muy def ay preuve lay wane parce que sëñ ngay def dara di làqatu bon loolu man dama ciy xaw xal ñaar mais man dama gis muy faj di wane ay preuve preuve leer jinne bi di wax ma xam ni kii li muy wax dëgg la moo tax ma ñëw keneen waxuma demal ci Thierno Moule man vidéo yi damay tout le temps damay nekk ci réseaux sociaux yi waaw man réseaux sociaux yi laay nekk dama ciy connecté wu tout le temps di xam luy xew waaw parce que man loo gisee nii man si suis un cadre de l'école nationale d'administration tout le temps je suis dans les réseaux sociaux foofu moo tax ma loolu loo loolu tax ma ñëw xam Thierno looloo tax ma ñëw ci Thierno Moule ñëw waxtaan ak moom. loolu man waaw looloo tax ma wóolu ko daal man kenn waxuma ñëwal ci Thierno le man maa ko ñëw seetlu ko ay at par par à travers les vidéos moo tax ma wóolu ko loolu la rek ah. kontaan nañ kàddu yi am na solo. waaw ah, jaajëfal bu baax ci TMS TV. ñu ñi ñu ngi sant bu baax di di wax Thierno Moule mu continuer di di faj ay vidéo parce que day tax nit ñi gën ko jox wóol kóolute. mu nekkoon seen émission grand ñu amalee ko fii ci clinique Thierno Moule Sow la xalif général des Jinne ngeen dégg même ci biir patients yi ñu wax fi wax lu am solo rawatina kii ñuy wax Baba Ndiaye dëkk ca wessu Foire wax na fi ay kàddu yu am solo ci sëñ bi ginnaaw bi nga xamee ni day seetaan ay vidéo am génne na ay kàddu yu am solo kon defe naa ni la xalif général des Jinne dañu koy ñaanal gudd fan ak wér yaram yàlla gën a dëgëral tànk yi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci Sénégal ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci le monde international mais ci jàppale bi nga xam ne mi ngi koy jàppale ci volet social ci le monde entier. tey nag ma àndoon nag ci liggéey bi sama collègue naataango di Sarata dara àndoon ci caméra bi sëñ Moustapha di borom Taïf di leen jox dig daje suba ci même heure. même fréquence fii ci TMS TV jërë ngeen jëf